daa wax ne lu ñuy jaay di ko natt mbaa lu ñuy jaay di ko peese mën nga caa boole itam lu waxut mooy lu ñuy jaay di ko wàññi mel ne nen wala xaal su ngeen juboo moom mooy jaay mën na la jaay jaay ab jal bu ñu nee jal nag mooy loo xam ne maneesoon na ko seet ba xam ko ñu jekk-jekk jaay la ko noonu rek bañ ko natt ba xam nu mu toll bañ koo wàññi ba xam nu mu toll bañ koo peese ba xam nu mu toll xanaa jaay la ko noonu rek loolu mooy jaay ab jal kon daal luñ mën a peese mbaa ñu mën ko natt mbaa ñu mën ko wàññi ba xam ko ñu jekki-jekki jaay la ca loo xam ne kenn nattu ko kenn peesiwu kenn wàññiwu ko loolu moo tudd jaay ab jal moom nag ni mu ko waxee daa gàtt waaye daa bari ay sart sart ba ci jëkk mooy nattoom bi rek mu dib jal waaye boo nee ko jal fii ab jal jaay ma ko du baax ñaareel ba mooy na ne jonn teew ñu di ko gis nga xam ne dañuy sart kay jaay ak kay jënd ñoom ñëpp bu ci nekk nekk njàccaar kenn bañ caa nekk gumba waaye bu ci kenn nekkee gumba rek du baax ndax jal moom dañ cay sart ñu gis ko te bu kenn ko gumbaa du baax ñetteel ba mooy jal ba bu mu rëy rëyaay boo xam ne daal loo ko gam-gam le gam-gam le rek juum ca mel ne angaar ab angaar moom bu fekkee xamuñ nam toll rek daanaka loo ko gam-gam le gam-gam le rek juum ca di nangu jal mel noonu ñu koy jaay ñeenteel ba mooy ñoom ñi koy jaayante ñëpp nañ ko umpale suñ ko bokkee xam moom du aay ndax day mel ne kon nekkul ab jal ndax ne ko xam nañ nam toll rek ñu te ñoom ñëpp ñoo ko bokk xam kon jaay lu ñu xam la waaye nekkatul ab jal lay bon kay mooy kenn ka xam na jal ba toll kenn ka bañ koo xam loolu moom bu amee rek mu yàqu juróomeel ba mooy ñoom ñi nga xam ne ñooy jëflante ci jal ba kenn ku ci nekk miin loola ba nga xam ne buñ ca jalee dara nga mën a gam-gamle ne nangam lay war a toll nga xam na nga ko gam-gamlee daal moom sa xam-xam tax na loolee nga ko gam-gamlee lam koy ëpp du bari lam koy yéese du bari ndax xam ko xam loola ñoom ñaar ñëpp nañu mel noona juróom-benneel mooy suuf sa nga xam ne fa la jal ba jalu na maase bañ a tunde bañ a xóot su fekkee ne fa jal ba jale rek ñàkk naa maase kon buñ ko seetloo daal jàpp ne ñàkk naa maase tax na kii kat nax na moroom mais kañu nax mooy seet bu ko neexee wéyal bu ko neexee bàyyi juróom-ñaareel bi nag moom muy sart juróom-ñaareel bi bu dee ci lu ñu wàññi rek dañ ko cay sart mooy bu mu doon loo xam ne mënees na ko wàññi te doo ci sonn bu dee loola lu ñuy jaay la di ko baaxoo wàññi te it mënees na ko wàññi te doo ci sonn di nangu ko jaay ci dal faaw kon ñu wàññi ko njëkk door koo jaay sartu juróom-ñetteel bi mooy loolee kat bu mu doon loo xam ne ay benn bennam day wuute lool te seeni njëg di soree xam nga lu mel ne ak jur ni ki ay xar mbaa ay bëy mbaa gàtt mbaa nag mbaa gëléem ak yéeme noonu di nangu ko ci jaay coggal te kenn wàññiwu ko séer ñu ko ay benn benn ndax xam nga dañuy wuute lool njëg dangay gis benn xar mën a jar junni yu bari nga gis am xar bi jar ay téeméer dong kon xam nga ne benn benn xar ya ak benn benn bëy yaa ngi demee noonu daal moom mën naa apparenter lool lool mën naa sore lool lool lu mel noonu di nangu ko ci jaayu jàll déedéet xanaa kay day doon loo xam ne ay benn bennam du apparenter lool ak njëgam itam du sore lool mel ne xaal boo ko dee seet siin ko apparenter du faral di bari lu mel ni mango lu mel ni darkase lu mel ni sump lu mel ni aloom yooyu nga xam ne daal moom li ci ëpp wala nen gis nga nen li ci ëpp duñ faral di ëppante lañ mën a jaay ci jal daal day doon loo xam ne benn benn ya duñ faral di ëppante ci ci ay jëmm duñ faral di ëppante njëg ëppante gu sore lool lool wa sart la ca sartu juróom-ñeenteel mooy jal ba bu mu doon loo xam ne lañ cay fay muy njëg moom des koy natt te wenn xeet wa dong la mel ne dañoo jël am pepp mbaa ak ceeb di ko ko jaay noona te moom la muy fay pepp lay doon mbaa ceeb lay doon boo xam ne natt nañ ko ba xam ko mbaa pees nañ ko ba xam ko kon xam nga ne bayhu majhuulin bi ma'luumin lay doon dagam lee jal la lañ koy fay buy njëkk nag moom dañ ko natt ba xam ko mbaa ñu peese ko ba xam ko loolu du baax bu dee wenn xeet wa déedéet dagam lépp wenn xeet wa dong la du baax di ki pepp ak pepp wala ceeb ak ceeb lee nekk ab jal lee nekk lu ñu peese ba xam ko loolu du baax mbaa lee nekk ab jël lee nekk lu ñu natt ba xam ko ba tey du baax bu fekkoon ni sax tam du wenn xeet waaye yaari xeet yooyu ku ca nekk dañ koy jëflante kat ci cosaan daawuñ ci jëflante noona mel ne kee day joxe suuf nga xam ne suuf lu cëpp ko masaa di jaay doo ko natt kee joxe pepp te pepp moom lu cëpp dañ ko daan natt bi ko masaa di jaay ci yooyu jamono lu mel noonu kon buñ doon jëflante ci jalub pepp ak jalub suuf te nga xam ne jalub pepp ba moom la ñuy jaay te kenn du ko natt kenn du ko xam suuf sa nag moom la ñuy natt moom ba xam nu mu toll su boobaa ku ci ne génn na ci cosaanam ndax pepp bañ aaroo woon a natt te ñu koy jaay rek noonu ci ab jal kenn nattu ko suuf ma nga xam ne moom lañu aadoo woon a jaay noonu rek te bañ koo natt te des koy natt ci jëflante bii kon kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar génn na cosaanam boobu itam du baax bu fekkoon ne nag kenn ku nekk ci ñoom ñaar daa nekk ci cosaanam mu ñaari xeet yu bokkut dara du ci nekk mel ne misaal mi nga joxe léegi su fekkoon ne suuf sa lañuy jaay ab jal pepp mañ cay fay nag moom ñu natt ko su boobaa ku ca nekk aw na ci aw yoonam wopp xam ne mooy cosaan la ci buñ ci masaat jëflante kooku moom dana baax kon sart yi ñu wax buy dajee ci ab jal lees koy door a mën a jaay léemu ne nag si wat danaa niiri wat darahimi maakaana maskuukan te wane ne wur sa xaalis wa nga xam ne dañ koo tàmpe tàmpem nguur ga ba di ci jëflante ca dëkk ba ba ci béréb booba jeex na kenn mën caa jëflante te wëññiwoo ba xam nu dinaar ya toll mbaa nu dërëm ya toll mbaa bu dee xaalis CFA mbaa beneen faaw ñu wàññi ko ba xam nam toll duñ mën a jekki-jekki rek jëflante ca ci loo xam ne kenn wëññiwu ko ba xam nam toll mel ne doo mën a fekk rek koor weccet jal ko fi suuf yow nga yàkkamti daal koy tegal rek kayitu ñaar téeméer daal toll ni jal ba dem mel ne weccete ngeen yéen ñaar weccete googu ak jaayante lañ koy tuddee mais noonu kon dañoo wàññilee te xam nañ koy dunam toll te lee xamuñu ko kenn du ko nangu bu dee nag morso yi wur sa xaalis yi nga xam ne dañ koy xel di ci tëgg ay jaaroo ki takkaay rek yu demee noonu moom mënees na caa jënd ab jal wàññiwul dara wees woon nañ ko léegi maanaam bu dee loo xam ne ay benn bennam day faral di ëppante njëg lool lool di ëppante ay jëmm lool lool des ko mën a jaay am amee kenn du mën a jaay coogalum jaam jamono yi nga xam ne xarit bay mi ngi am coogal kenn du mën a jekki-jekki rek jënd ak coogal noonu faaw ñu teqale ko benn benn ndax liñ ko leerale woon bu dee jaam ya jaam yi dañuy wuute lool bu dee xar yaag bëy yaag nag yaag gëléem ya ci gétt ga dañuy wuute lool lool loolu duñ ko nangoo jaay ci ab jal rek faaw ñu seetlu ko teqale ko benn benn bu dee nii nga xam ne moom la fëgg jaay di amee nag nga xam ne xeeti tissé yi ay yére la waaye léeg-léeg morceau day bare bare bari ba nga xam ne du neex a wàññi benn benn di ko jaay mel na ne kon mënees naa jekki-jekki jaay la balu fëgg jaay la cay aay daal mooy niñ koy defee nga xam ne doo ko tàjj da ngay jënd rek boo demee léeg-léeg mu xéewale muy sa njariñ léeg-léeg mu ñàkk solo lool yamaay lool loolu daal moo ci xaw day waar waaye bu fekkoon des na ko tas ba gis ko xam ne lii neexut a wàññi benn benn ñu waxaale ba juboo ci njëg mel ne ne kon moom yoon dana ko nangu ndax loolu ndax loolu dafa naqaree wàññi morso ya benn benn waaye bu doon ay tiise bassin moom nga xam ne yow mën naa wàññi ay benn benn kooku faaw ñu wàññi ko loolu day dellu ci lépp lu ñuy jaay di ko wàññi lépp lu ñuy jaay di ko wàññi te nga xam ne loolee moom yow mën naa wàññi ba xam nu mu toll rek faaw nañ ko wàññi ba xam nu mu toll door koo jaay waaye bu njëkki-njëkki rek jaay ko global bu dee loo xam ne nag moom neexut a wàññi ndax wàññi ko day indi ab coono rek waaw su boobaa kon nees na koo jaay ab jal ci kaw sart yi nga xam ne moom lañ joxe woon léegi nee na boo dee jënd ay garab yi tàndarma te fekk mu meññ te meññet ma góoral nañ ko góoral googu nag moom bu dee tàndarma mooy dañuy fab ca tuur tuur yi tàndarma gu góor ga def ko ca meññet ma dana ko tee ruus loolu mooy góoral ga léegi nag boo dee jënd ay taati garab yi tàndarma te fekk mu meññ dañ góoral ko boo bëggee meññet ma bokk ci taat yi ngay jënd da nga koy leeral ne ko man ka jënduma taati kese yi damay jëndaale meññet mi loolu lay tax bu ngeen waxaalee ba juboo nga moom yaar yëpp muy taat ya ak meññet ma waaye bu fekkee leeraloo loolu dañuy jàpp ne taat yi kese la la jaay waaye meññet ma moom mi doon jaay moo ko moom mboolem yi meññ yëpp rek noonu la su fekkee xas nañ ko góoral soo bëggee meññet ma bokk ca la meññ mooy jëmm ja meññ muy garab ga da ngay leeral ne meññet mi ci la jënduma garab yi kese yi waaye bu fekkee leeraloo ko dañuy jàpp ne dañ laa jaay taati kese yi waaye meññet ma kii jaay moo ko moom waaye nag góoralu lu bokkut ak tàndarma daa wuuteeg góoral tàndarma say boo jàpp takk-takk bi mooy lépp lu bokkut ak tàndarma ak góoralam mooy meññet ma siis ba nga xam ne boo nee jàkk rek jàkkaarloo meññet ma xàmmee ko xob ya ñu teqali ko loolu bu amee rek muy darkase muy mango muy dimbu muy leneen daal su meññee meññ goo xam ne boo nee jàkk jàkkaarloo meññet ma xaman koo xàmmee bu baax mu teqali ko xob ya su boobaa loolu góoral nañ ko soo bëggee ci di ngay jënd moom yaar yëpp garab yaag meññet ma da ngay leeral ne jënduma garab yi kese meññet mi itam ci la su fekkee nag moom meññet ma nekkul lu fees ba boo xoolee jàkkaarloo moom kon moom boo jekkee jekki jënd garab yi itam danga koy moomaale meññet ma doonte sartaali woo ko ca woon xeetu mbay nag moom mel ne suunaag saañoog mboq ak gerte yooyu moom boo jënd suuf fekk ñu faraasu ca mbaa ñu ji ca te saxagul ndegam saxagul ba génn ci biti rek day jàpp ne kon kenn góoralu ko boo jëlee suuf sa rek lañ faraasu woon ci biir mbaa lañ ci jiitu saxagut dal nga koy moomaale donte néew woon day jëndaale li nga ci ji mbaa li nga ci faraasu waaye nag moom génnagul saxagul ba génn rek booy jënd suuf sa daal di moomaale la nekkoon ci biir suuf sa te saxagul ba génn waaye nag ak góoralam mooy loolee sax ba génn léeg-léeg xeeti mbay yooyu moom bu xasee sax ba génn ci bitti rek boo bëggee mbay mu bokk ca da nga koy leeral ne ko jënduma suufu kese damay jëndaale li nga ci ji ba mu sax waaye su fekkee leeraloo loolu dañuy jàpp ne da laa jaay suuf su kese waaye loolee ci sax moom moo ko moom. yooyu jamono moom jaam daa bari woon te bari àtte mu ne nag bu ñu la dee jaayub jaam te fekk moom alal soo bëggee alalam bokk ca da nga koy wax ne ko jëndum jaamu kese damay jëndaale alalam ba ngeen juboo ca. bu fekkee waxaale woo ci loolu ba la jaayee ba noppi jaam ba kese ngay moom ak yéer yu liggéeyukaayam waaye lu bokk ci loolu ci alalam moom doon jaay moom li moomoon jaam bi di ko jaay moo koy moom.